ndax sëñ Béthio mbirum yàllaa nu boole waaye du mbirum mbuusum nit ndax bu doon nit rek ak mbirum nit rek du nu aju ci moom waaye mbirum yàllaa nu boole. kon pas-pas bi yóbbu nañ ci ñu xam ne buñ ko gisul ci saa yirit bi moom moog ñu na nekk ndax li koy tegtale mooy ku ne xam na ne keroog ba yonent bi ne yow ma akmal lakum diinikum ak gannaaw loolu ñu noppi ko gis suñu bët ci saayir terewul ñëpp ñëpp maase nañu xam ne yonent bi jógu fi ndax mbirum yàlla mi mu yor ku jariñu moo la jariñ du dëgg kon Cheikh Béthio it yegg nañ ci xam-xam xam ne mbuusum nitam mi mën na fi jóg waaye liy tax li taxoon ñu ànd ak moom tax ñu di ko jariñoo muy mbirum Serigne Touba dootul jóg jamono. moo tax yëg-yëg ba ñu amoon ci daa ànd ak moom jëmmam ci tabaski ak bii tabaski jotee muy tabaski ren ànduñoo ak moom ci jëmmam amul wuute bu bari wuute bi rek mooy jëmmi nit de boo ko miinee soo ko gisul xawa a waaye bu dul loolu wax dëgg yàlla. amuñu lenn loo xam ne gis nañ ko ci loo xam ne gis nañ ne Tabaski day safatuñu ndax olof day wax ne du mooy doomam mooy ndax du mooma sëriñ Saliou mii nga xam ne mooy ab xalifaam ñuy ñaan mu yàgg fi te ci barkeb sëriñ Saliou moom day taxawaayam mate na ko ba tax su woon miinug jëmm mën naa am ñàkk a gis sëñ Béthio ci julli gi mën naa am doo ko yëg lool waaye nag sëñ Béthio nag moo amuk jagle sëriñ tubaaku ko ber defal ko loo xam ne kenn munu ko wurtal tol ne mom kenn munu ko remplacer it kon faw su mbir amé dang ko ci yek waaye wax deug yalla ni nu tëbaskee ren mel na rek ni tan daan ci karamam ndax likoy mandargal moy xarit tëbaski yi jënd ko ren da yok way wàññeekuwul suñ jàppoon defee jóg kenn du xar tabaski luñ ko ran jox ci ay xar ren triple nañ ko ñetti yoon ngir xam gu nu xam na jogu fi te buñ ko joxee sëñ sal tek ko ci loxom mom Cheikh ci ko nangu ci batine te kenn ku nit ñun am na la ci won kon ci gattal Lorek rek man na la ko wax su fekkon japp ne fe jogit dañ na kon jaratul ñu julli ji ndax dañ daan jul ay jël fi ay dari ñun jëwrinu daara yi universel yi ak jëwrinu daara yi luwee ay car àndandoo ak mbolo mi ñi tal seen ay auto yu ndaw jogi fi ci dakaru dem dëkkam bi ñu wax madinatu salam te mu tuddi ko ci ndigalu serigne sallu di fa julli je te ren ñoo ko àndandoo ak yeen yek ngeen fa lañ julli ko julli je te dakaru ak madinatu salam muy bir mbur sorena kon sun jappone ku fi jóg la bu julli jot na naa xol xool ji ma jege ba juma ji ma li waral it foofa ñu ñu julli jee fa ndigal la te murit moom laa tafaru seen bi xëy na is isnin fa indi sëtin fi xabul sënin ndigal la koy jariñ te sëriñ Saali wa ko joxoon ndigalu na sos jullik iit su bis bi jotatee mook bokki taali bi ak ku bëgg a jullee nag moom jox na ko ndigal mu sos jullik iit di yebal sunu mbokkum taali bi sëriñ laa Jaxate di mbokkum sëriñ bi ci deret mu ñëw di julli si kon julli